baax a baax gars yi pare mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen baalu àq ci tam xarit bi ñu jugee te di leen baal àq di ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi. du nuyu promoteur bu mag bi Jamaïcain di ko ñaanal sunu borom defal ko jàmm di ko ñaanal lamb ji mu jëm nii sunu borom defal ko lu kawe njottam Franc ak Fils de Balla Fils de Balla ku ne xam na ne ñaari xale yi ay ndaanaan lañ promoteur bi ndaanaan la Gora Sock nuyu. di nuyu waa unité 10 di nuyu waa parcelle di nuyu mbër yépp tey lan ngay wax waa Cambérène lan ngay wax waa parcelle lan ngay wax ñi lay seetaan. waaw ginnaaw ma sant yàlla rek julli ci yonte bi di sant sama ñaari waajur di sant kilifa diine yëpp di jégul na koñ bi ñu defee open press bi quoi ndax maanaam am ñu fi tawat am na ñoo xam te ne bi xama dañuy nelaw ñu leen di déranger ko ñu ngi leen di jégalu bu baax a baax di wax ñun xama rek doomu gox bi lan quoi amuñ fu ñu ko defee fudul fii. fii lañ ko mën a defee même bu jógee Cambérène fii lañ mën a defee open di nag bépp mbaru parcelle bu fi teew rek ak waa jàmbaar comme si yëpp maa leen di di leen sant gërëm gis naa seen taxawaay waaw. jërëjëf Gora Sock gis nañ li mooy kàddu yi nga wax di nuyu mais sa diggante ki nga xamante ne mooy Fils de muy combat boo xamante ne day bu bëri coow la boo xamante ne combat dër bi a wax. gis nga jamono ji nga xamante ne mooy xaw ci li lamb mooy affaire derby ak ak combat yoo xamante ne 100 pour cent da ciy joué ci lu bëree bëree bëri Fils de Balla ci lamb ji waaw xam nga kooku am na droit wax loolu ndax mbër mu nekk moom boo jógee sa kër ndam rek ngay gis booy dem lamb jaat ndam ngay gis doo ànd ak nit xamante naa damay daanu mais man li ma waxoon jóguma si ba léegi du ma moromam si bëre du ma moromam si xeex du ma morom si doole maa ko dàq bëri maa ko bu doole te dimanche vingt une heure xam ne maa ko mën du ma moromam mais mais Gora Sock Gora Sock ñu gis ne làmb yi nga mës a am yëpp lamb ji nga gën a fonk waaye dangay ngay bëre xale bu doy waar da ngay bëre xale boo xam ne gis nga mobilisation bi mu def démb tey xale boobu tey da nga ne dama dégg say biir wax nga ne dimanche si heure bi lay xam kan mooy Gora Sock waaw xam nga loolu dara mbër buy bëre ay mbokkam dinañ ko jàppale teewal ko ak waa goxam loolu dama ci kontaan quoi man li ma waxoon jooju maa ko subardeer sama mbokk yi bu ñu wàccee ñëw fii du ma moromam ñëpp dañuy liggéey tey du jour woo xam liggéey man Fils de Balla lépp lu muy wax bu liggéey si géew bi na ko fekk su fekkee bu bëggee xeex da koy fekk bu bëggee bëre koy bëgg bu bëggee bëre ba soo bëggee xeex bëre bu gaaw man li ma wax dama dafa leer man nekkuma mbër boo xam damay nekk fi di négocier jaar gauche jaar droite waxuma ko mu taxaw waxuma ko mu bëree nii ni ko neex na bëree ma jàpp ko daan ko waaw ah. waaw fu mu ko fu taxaw nga fekk ko fa jàpp ko daan su ma ko daanee kese yam ci da koy neex dama koy duma te ba léegi jóguma ci moom tappet la soo xàccee day muuroo loxo yi loolu soog ci moo ko mais loolu mënu koo gëm ma moom du làmb moo ñu booyee nii de dañoo war a bëre bëre ay nawle lañ mais man maa ko mën fuuf te maa ko ëpp doole. foo ko teg. ma moom boo bokkuñ yaram bokkuñ doole bokkuñ ñu ñu ko kooku mul doole day wax nii rek. bii rek lax la ma ëpp kese mais amul leneen lu ma ëpp ëpp mooy mbokk bu ma doole waaw. mais loolu soog yaa mën yaa ëpp doole war na yàlla. mais dara xam parce que yéen ñaar seen combat dépassé na lamb coow yi seen problème bi nga xamante ne mooy cap bi ngeen doon xëccoo sax si biir lamb ji cap boobu lan moo ci ne. non loolu ay détails la loolu du ma ci nekk di waxaat lamb ji dimanche la soreetul. li ma am solo di wax rek. mooy di woo fépp mboor mboor nekk. ak waa parcelle. ak waa Cambérène. nuyoo ma teg ci loxo mam père ba président jàmbaar woo waa Cambérène woo Moussa woo Amadou woo Go woo Eliwa Diop woo monsieur le di woo Gora gis naa taxawaayam bu baax a baax a baax di woo grand Babacar Gueye di woo Youssou Ndoye góor gi suñu Seydou di woo maître Dior Diagne di woo Papino gars di woo Momo di woo tuuti pro oto kooku yàgg na sonn ci di nag nuyoo maa ngi koy teg sama loxo Modou Lo ak Yékini Junior di wax sama grand yanda bi teew du lii moo fi tax a teew du lamb dañoo yàgg bi may jàng bëri dama ma jëlee ba Siaw ba Cambérène nga xam ne la mën na 4 kilomètres chaque fu ñu en mu bëri ñu daan mu daan moo la doon tëggal combat non ba pare muy ma koy jël mais Fils de Balla dafa may minute 20 minutes dala may moom xam na ma 20 secondes wuy ma seconde ñun ñoo ko moom seconde ñoo ko moom moom bu mayee mosul bëre ay seconde di woo Xaalim Silla gis naa taxawaayam Xaalim Silla transporteur ba ba ma ñëw rek damay ñëw di woo Aada Dieng ak Modou Bey di woo Seexu Naajo Ousseynou Laye Bas ñooñu ba léegi ci soo ba léegi ah ak sama doomu nday bi nga xam ne aw ma fayam otaam lay jël ànd ak du sonn mboor mboor yëpp maa leen di woo si combat bi di woo waa Cambérène waa Parcelles di woo Asmalik Seck kooku sama waay la papam dama bëgg yaayam bëgg ma maa ngi woo lës ak waa këram yëpp ak Dieng Seck mi nga xam ne chaque jour bu événement amee mooy jënd ceeb bi jënd lépp. Fils de Balla Gora Sock Gora Sock dafa mel ne dafa mel ne Fils de Balla am na loo ko téel dafa mel ne Fils de Balla am na ay kàddu yoo ko am na loo ko téel ne ko bu dimanche la yëpp du tàmbali. nee na eh, wuy ma nee na Balla Gaye na sa kon yow doo ay booyam loolu Balla Gaye. daa ko daa ma ko yóbbante la moom Balla Gaye numéro 2. loo ko micro bi ngay wax ni booy may la ma micro bi. ma ne booy may la ma may la may may la ma. Balla Gaye numéro la grand champion la. daf na lu ñu ci làmb mbër la mais dama bëgg su indee booy ba dimanche ba ma daan ko pare mu dëggal boobu ñu bëre ma ngi ci kat ci trois avance yooyu mu yor mu yokk ci benn muy man. dama ne la ñaari sa kopp yi ma fa gis yëpp xañ nañ ci làmb ji. muy kan ak kan. guy gi ak yëpp xañ nañ si dimanche. man du mbër yooyu di négocier. ñaari saako kopp yëpp xañ nañ si yëpp xañ nañ si làmb ji ak Balla yëpp xañ nañ si làmb ji bu neex nañ waajal booy bi indi ko ma jàpp ko duma ko daan ko incha allah. doore soog damaa bëgg nga jàkkaarloog booy bi wax ak moom mu lay gis. Fils de Balla amul lenn lenn léegi lu nekk ci wàllu mbër lu mu ëppalee xam nga wala kii Fils de Balla lan mooy problème am rek wax ji rek moo indi làmb ji fii mais nag làmb coolo ñoom nangul nañ ko mais coow lee bëri mais deful benn sax bu mu war a bëreeg moom mais la 14 day xam ne mu war a bëreeg moom waaw xam nga boobu léegi waxuma ko mais deful mu war a bëreeg moom ah. dama ne la ma dalee daan seconde mbër dafa yàgg ay jam ceer ñoo ko bu dool sept secondes ay mobile deux moom mën naa ko daan sax trois secondes quatre li wax nii mënu ngi gëm xanaa kay moom xanaa na taxaw Gora Sock yow da nga yaakaar ne Fils de Balla yaa ko ëpp doole ñaari yoon loolu foo ko dama ko entraînement dama ko entraînement gën koo gaaw moom mënul dara dafa soj dafa soj dara du ko xeeñ bu dee maa moom rek ci coono bu dee ku ëpp ku gën a coono ci làmb ji rek yàlla na ko yàlla may ndam man maa gën a ci làmb ji fopp gën ko entraîné gars yi ñoo nekk di wax rek wax moo baaxul ñëwal yow Bamba. Mor te kenn ku ci nekk rek bëgg nga tëjaale saison bi li nga xamante ne bii mooy nga bis bi ne bii waa parcelle dañu jeexal. ne ko instant parcelle dafa jeexal nii maa ko war a andi. waa Parcelles ak waa Cambérène ah ak waa Mbor dañu faa teg jeexal teg jeexal na ko koo xam mooy combat capital la te la 14 incha rabbi day xam ne combat capital lay bëre. ne ko ne ko ne ko ma ñëw ma ci stade bi diree ko ko diree ko de. dama ñëw bëre ak moom jàpp ko daan ko incha allah. Eh, Gora gu mujj gi lan la looy tàggatoo ak lan ngay wax say supporters si ci non à la violence ak lan ngay wax promoteur bi nga xam si ni moom moo tëgg bis bi muy Jamaïcain di seen moroom di xale boo xam si ni wax dëgg yàlla gis nañ làmb ji nu mu si sonnee lan ngay wax promoteur bi Jamaïcain ak lan ngay wax say mbokk. waaw comme li ma wax moom du ma gën a gore man ndaw laa. di wax rek ñi may jàppale ñëpp man soxla ma ko ma may xaaj ma def sama poos ma bëgg ma jëndal ticket rek aw ma beneen problème man deuxièmement tali njaga mbay bépp maa leen di woo inte neuf Cambérène arrêt yëpp maa woo bàyyiwuma kenn parcelle gépp 1 ba 26 Cambérène 2 inte 5 Grand Yoff Grand Médine arrêt Sikale ñëpp maa leen di woo waa Fakhalane ñëpp maa woo bàyyiwuma kenn say ñebe ñëpp. mbayaari mbayaari. mbayaari yëpp maa leen di woo. waa 37. waa ñëpp maa leen di woo. forom ci kanam. waa xeer bi bal bi bàyyiwuma kenn kenn waa Kër Massar Mbor Mbor fu mu nekk nag maa ngi koy woo sama sant bu baax nag ku tudd alaaj Tafa kooku dafa sonn ci man du nuyu nag aada Dieng aada Jokkel ku sonn ci man la wax dëgg si yàlla ba ma gaañoo sama tànk bi ci ñoo ma jàppale may faju ci la bokk te loolu xam dafa met sama xaalis laa denc jël ko fajoo ba mu mat xam nga san sant Ousseynou ak Bas Laye ak musuñ maa bàyyi benn yoon mais comme bëgguñ ma xiif bëgguñ ma même su ma jógee entraînement dañ ma laaj ba xam lekk naa kon kooku ak cant ndoof mi ñun waa parcelle amuñ fayam bépp mbër bu fi def open press wala nga woote fi bis da ci ajjël alalam daf ci da lay defaral baax jox teset xam ak cant te moom booy bu ndaw la ndaw la ndaw ñaari Baye Fall ñaari maam Seera Fall yi seen fay dañu sonn ci man chaque jour nuyu nag sama nijaay aada koo xam nijaay la quoi nijaay mooy yaay gars yi samay jarbaat ñoom daa bàyyiwuma kenn rendez-vous rendez-vous kaddu gi rendez-vous la Cados ma duy ko ba mu raase duy ko daan ko Modou Thiep Modou Thiep Modou Thiep maa ngi koy sant di ko gërëm Modou Thiep maa ngi sant di ko gërëm gis na nit ba amee ci yow yëg-yëg di la woo guddeeg bëccëg sooy tëdd mi ngi lay woo booy entraînement mi ngi lay woo kooku ak cant la Modou Thiep aw fayam di sant nag coach coach su jàmbaar yëpp gis naa seen taxawaay yàlla nañu si yàlla fay di nuyu teg loxo nuyu nag combat bi eme sama géwél maa ngi koy nuyu waa waa na maam Fatou may ba ab sa mbay ñoom ñëpp maa leen woo sama combat bi waa teem ak si nag maa leen woo ci combat bi di woo sama mag Modou Lo sama mag Papa Sow sama mag Yékini Junior sama mag Yanda di jaale sama mag Moussa Dioum yàlla na ko yàlla yërëm te xar ko doon taxaw fii taxawaayam doon teew fii nit ku baax la ku mën a sonn ci doomu aadama di nuyu Mansour ba doom mam ba mu gën jàpp yàgg na ci jàpp di nuyu ñëpp ay ma absa ay badiga ñoom ñëpp maa ngi woo sama combat bi man doomu parcelle laa nekk doomu mboor maa ngi woo ñëpp incha allah rabi rendez-vous dimanche incha allah